waaye dama bëggoon nga xam ne la woon woon ne na comme ni ma la ko waxee sànq la woon xale bi nga doon tàpp di ko def loolu ne pour sa propre plaisir xale boobu nga xamoon ne da nga waxoon ne di nga ko utiliser pour am li nga bëgg dama bëggoon nga xam ne xale boobu màgg na te yow xam nga. Euh, jërëjëf euh, Abdou Aziz gis ngeen élément bi ñu teg euh, élément bi rek day waxal boppam. Euh, dégg ngeen ci Ousmane Sonko mu wax mais dégg ngeen ci Adji Sarr mu wax ci dossier boo xamante ne jàpp nañ ne euh, dossier bu war a yem ci ñaari nit la muy une chose privée mais ñu dem ba dossier bi nekk une chose publique euh, parce que kiñ ci tudd moo tollu dayo boobu ku ma ne Ousmane Sonko nekk chef de l'opposition mais gisee aussi aji Sarr ci dossier bi mais gis ñeneen ay kilifa yeneen yu ñu tudd ci biir dossier bi mooy mbir mu doy waar euh, léegi nag gis nañu Adji Sarr sortem bi mu def euh, di wax ne il un procès public la wax le procès est déjà public xam naa procès bi mu wax mooy procès bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu euh, médiatisé la la bëgg a wax mais fan la ñu jëm ak dossier bi fan la ñu jëm ak dossier yi parce que ñu bëri tey ji ñàkk nañ seen liggéey ñenn ñi aussi am na yenn yu bëri yu mu créé ñu ngi biir kaso euh, vraiment daal sénégal yi dem nañu ba dossier bi seen bopp la ñu bëgg tey ji ñi ñi xam nan la wànnante mu jege gëtam parce que il y a quatorze morts fukk ak ñeenti nit ñu ñàkk seen bakkan ci dossier bi kon je pense que ne lii lu ñu war a leeral la mais aussi lu ñu war a teg ci sénégalais yi leeral axe yu bëri pour nit ñi xom comprendre les tenants et les aboutissants imam mhm. euh, ça fait deux ans toog nga fii dox nga tànk tànki jàmb mhm. ci dossier bii ba tàyyee euh, yow ak Abbé Jacques Seck mhm. ak Mame Matar euh, mais ñu ñëwaat deux ans encore une fois on nous parle de Ousmane Sonko Adji et de procès Euh, jërëjëf laa ñi ko wax ci masse parce que constance bi dafa am solo yow mhm. euh, médiation boobu ngay tudd noonu yow yaa ubbi bunt bi mhm. loolu su ma ko waxul damay suul jëf mais lan mooy dund dund mooy équilibre ah laqad anzalna laqad euh, laqad arsalna rusulana bil bayyinaati wa anzalna maahum alkitaaba walmisaana bilqisti yàlla dafa wax ni man maa jël justice teg ko seen loxo ñu ne ko yàlla pour la mu ne pour seen dundu baax maanaam justice dafa ñëw pour ñoŋal dundu doomu aadama parce que su fa newul rek mhm. dundu salfaaño te mooy anarchie mooy am doom équilibre alors man nag je suis là pour défendre les valeurs je suis pas euh, en casquette politique. Mm-hmm. parce que islam moo jiitul lépp yàllaay waaja. Mm-hmm. ay waxama wér. Mm-hmm. fa mu jaar a baax. na gisee noonu la. yàllaay affaire bi. Sénégal dafay jeex. Adji Sarr dafay jeex président Sonko dafay jeex président Macky Sall dafay jeex. ñëpp dañuy jeex. fooy wax na nga bàyyi xel yàlla maa ngi ko ñaan plateau bi. Mhm, yàlla du moromu kenn ci mbindeef moo bind bind yi. Mhm. te waa ji dafa reer rek salaat la lekk wala ganaar wala wala cere la lekk tëdd rek yàlla wal ko. Mhm. génn ci ndoxum ndox mu tuur ko mu génne cabinet. génne direct bi koy alimenté génn ci ndoxum góor mu sëy soxnaam. mu wal ko daf ko nit kooku du nit kooku du nit. kooku du nit maanaam yàlla nañ ko bàyyi xel man je la là en défendant les valeurs islamiques. lan mooy valeur islamique. mooy man su ma bëggee fal Ousmane Sonko du ma ko may dara. Mhm. ah ça c'est que un président n'est pas n'importe qui. Mhm. damay bëgg mu weex tàll gën ma ëpp ma xam mhm. gën ma jub gën ma maanu parce que sama réew laa ko bëgg a jox. sama yaakaar laa bëgg def ci muusuwaa teg ci loxoom. dama ko bëgg a doyle sama dund généralement moo tax man su ma ko bëggee fal du ko may dara moo tax ku bëgg Ousmane Sonko mu ne ci dëgg ak mu nekk ci nekk yëpp. bàyyil xel boobu ma loolu ma la wax. maanaam président du n'importe kii ok moom d'ailleurs boole naa ko ci man ci liste yi ma propose sama euh, sama ñaan ci ñi nga xam ne côté naa ci ñoom pour ñu yor réew mi moom bind naa turam mais am naa question bu ma posé. Mhm. man question nga posé. question bi ma posé mooy moom dafa war a yor réew mi dafa laaj réew mi. Mhm. sunu kilifa waral la doon xam nga président maftu alayhi yaay président am xutbu zaman bi yaay président am. imam a bi yaay xalifa général fi mu toll nii euh, président Macky Sall mooy kilifaam administrativement parlant attention hein président du n'importe qui. ok moo tax man su ma ko bëggee fal Ousmane Sonko du ma ko may dara. maa ngi ñëwaat ci baat boo baat bu riche laa la wax. Mhm. mooy les valeur comptent encore. parce que ku ñu a pour diriger un pays. ku ñu war a dénk réew mi non non non man du ma am sama ñaari soxna. Mhm. ay xale. kuy maas ñoo la ko dàq. ma bàyyi la fi ku waxul dëgg wax fen mhm. xale bi am na dëgg amul dëgg jëmmi dem gi mooy catastrophe bi nañ ko dimbali eh waa Sénégal man la Ousmane Sonko kii dama ko noboon ndeet waay sama coro la woon déglu ma rek xam nga dëgg dëgg la dama ko noboon dama ko waaj def ñetteel parce que man dem naa kër ba xam naa am na ñaari soxna xam naa ay soxnaam dama ko waaj def ñetteel dama ko bëgg et puis c'est tout c'est ma vie privée c'est terminé xool du egsi fii gaa yaa ngi biir doomu jàmbur doomu jàmbur yi di amul seen i seen i seen i jànq. Mm-hmm. la l'adultère c'est comme de l'eau à boire ici au Sénégal. du moom rek moo ko def mais na na ko waxee noonu maanaam hey. sa c'est pas un débat sama. mais mais imam boo defee noonu dafa man da ngay accusé. déglu ma rek non non ne noonu. day man ni yow maanaam da ngay wax ne. dafa dafa dafa dem pour wax dëgg gaaw nga noppal nit ñi ñu dee comme ay melentaan. Adji Sarr maa ngi ñëw ci moom man je suis là am l'islam. ok bul fàtte sama bu ma fàtte man man du ma wax ak nit man damay wax ak principe comme dag nga ma ci Sonko naa taxaw Adji Sarr xale bu jigéen bu ndaw la. juddugul sax lan lay liggéey maase yaramu jàmbur c'est pas un travail nous vivons dans un monde moderne rek boo indi yooyu yëpp. mais une femme valeureuse ne doit pas nu mu tudd joxe yaramam noonu. Mm-hmm. ay 4 mai ay 2 mai ay un doigt yooyu yooyu du affaire jigéen boo xam ne da nga war a noobu ñu wala takk ci sëy ci jàkka ji alxayr nga war a jur ay wàlli jur ay professeur donc loolu mooy islaam mooy équilibre gis nga quand le message islamique est pa ñëpp ay bokk. je suis pas là pour Macky Sall yow xam nga ne man dama bokk aar Sénégal pour contre Macky Sall je suis pour Sonko je suis pas pour Adji Sarr je pour le Coran pour l'islam loolu ñoom ñaan ñëpp ñoo ñuy fonto <laughs> mais boo nekkee l'islam pare naan Sonko dafa war a def nangam. non ankay <laughs> moom sa point de xam nga xam nga dafa ne waaye dafa ne sallallahu alayhi wa sallam man damaa njaaloo dégg ma rek islam dañu dañ ko xamul sallallahu alayhi wa sallam ne ko non bu ne la njaaloo ne da ngaa jege ndaw si rek mu dama def séq ak moom dara sallallahu alayhi wa bu ko wax comme waa ji dafa nëbax mm-hmm. munu ko xam nga munu ko xam nga gën na ni kuur def ci moom noonu la def ci ndaw si sallallahu alayhi wa sallam kii dóor leen ko moo dóor boppam mm-hmm. gis nga absolument ma islam noonu lay doxee ok alors pour yërëm sénégalais yi gan mm-hmm. leen méegi yaa ngoon ci Adji Sarr maa ngi Adji Sarr non Adji moom man daf ma rusloo gis nga jigéen ñi koy défendre sax ñoom est-ce que nuruwuñu moom jigéen da nga ko naan yow njaalo du sa liggéey raay mu jaamu du sa liggéey demal wuti xam-xam préparer di jaamu yàlla pour nga jur ku baax xaaral sa ndaw téye ko pour ku baax takk la ku waxul dëgg wax fen senegal sa nit ñi dama dem Maroc bu yàggul gaa ñi ne ma ñu ngi ñibbi ma ne la man ñibbiwuma Sénégal Adji Sarr ak Sonko tax ndoor mu tudd salaamaaleykum <laughs> wa a jërëjëf mais imam du ma la bàyyi noonu parce que aussi danga ne islaam nga fi teewal hmm? kon euh, dañu bëgg nga wax ñu àtteb lislaam ci jiiñ viol aussi. léegi boo ma laaj àtte rek duma duma wax viol rek. Mhm. man ndànk nag damay déparé ca sa loxo laal yaramu jàngul damay déparé al lams al lams touché en islam quoi touché la peau féminine sur une peau mhm. illégal loolu moom xam na ko sëriñ la. dañaa boobu mooy numéro un képp kuy dem ci bërëb bu ñuy maase ngay góor jigéen une femme étrangère étranger mooy aj ni ba di la laal nangul ni daf nga ponkulum bàkkaar xaaral yàlla interroger la ko loolu fa lay démarrer yeneen yi quatre mai yeneen kiyanteeg du ma ci àgg bàyyi ma bàyyil foofu baax na <laughs> jërëjëf ba léegi amaguma ci lu ma leer ci ci ci atem islam ah. eh, nañ nañ ci dikkaat waaw ma ñu eh, ci Pa Assane Seck eh, Euh, vraiment gis nga dossier bu tenir en leen tous les sénégalais. Mm-hmm. dem ba benn instant doo comprendre fan la ñu jëm ak dossier bii. Mm-hmm. on nous parle de dossier politique ah de dossier de viol. lu bëri mi ngi ci biir dossier bi ñu tudd leen ci euh, naka gisee confontration bi ak fan la dossier bi di jëmee Sénégal. alors <coughs> Mass jërëjëf euh, déglu naa kilifa bi imam. Mm-hmm. très intéressant Euh, man nag dama ne woon mbiru Adji Sarr ak euh, monsieur sonk Ousmane. Mhm. dootuma si wax je je je dama ko waxoon sama bopp quoi. Mhm. que vraiment basta. c'est comme il a dit c'est lassant c'est épuisant et à